voilà mbokki internet Rio Plus voilà les amis et fidèles téléspectateurs tey nag ñi nga xamante ne mooy këri kaw waa këri kaw dafa ànd daal di defar këri kaw ma taxaw defaraat këri kaw ma taxaw ak ñenn si paa yi rek ma bàyyi la ñu daal di présenté wax ñu initiative bi lan moo waral góor gi ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa këri kaw yëpp di am mbégte ci waa këri kaw yëpp initiative bi du dara lu dul ànd defaraat suñu quartier ndax nit ki moom amoolul sa quartier nit ki amoolul fa nga dëkk euh, bi at euh, gis-gis bi lépp du dara lu dul ñu ànd defaraat suñu quartier moo waral ñu ne ànd defaraat Kër Kaw entité bu bees la bu ñu créé ci quartier bi pour ñëpp gis ci seen bopp dañ ko woote itam pour ñëpp ñëw ànd bokk ndey bokk bàyyi pour ñu mën a defaraat quartier bi pour ñu delloowaat quartier bi fa mu nekkoon démb at bëkk démb ndax ku ne xam ne ne Kër Kaw benn quartier la ci biir Tëngéej boo xam ne exemple la modèle la ndax lu waay daan def rek wala lu waay u daan wala nga bëgg rek da ñëw da ñëw Kër Kaw kon buñ demee ba tey ji lépp loo xam ne entité la nekk biir Kër Kaw donc kër ka war tali yi war a yàqu mbedd yi dara baaxatul donc ay doomam ñoo war a jug maanaam taxawaat defaraat seen quartier te loolu moo waral entité ànd defaraat kër kaw bi. macha allah ñu gis na tey eh, ñëpp génn nañ paa yi génn nañ xale ndaw yi tout tànk yi génn nañ jigéen ñi génn nañ góor ñi génn nañ lan ngeen def ba réussir mouvement bi ñëpp ba ñëpp génn. waaw li li ñu may loolu mooy jiital suñuy mag. waaw dañu jiital suñuy mag suñuy sëriñ yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci quartier bi ku ci nekk ñu dem sa seeti la def porte à porte. waaw un ñu ngi def porte à porte dugg kër kaw yëpp parce que bëgguñu kenn kenn yëguma wala boolewuma moo waral ñu dugg kër yëpp waaw waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ay kilifa ci quartier bi ñëpp ñu seeti leen waxtaan ak ñoom ñëw jiital ci suñu mag suñu lépp Pate Ndiaye ku ne xam ne ko bon mu am na gis-gis ak vision boo xam ne bi ñu ñëwee waxtaan ak moom ci initiative ak projet bi non daf ñu dogaale wan nañu loolu man moom laa doon xaar waaw loolu mu doon xaar nag tey yàlla dogal na tey ji moo moo jur tey waaw këri kaw jigéen ñi génn nañ mag ñi génn nañ xale yi génn nañ ndaw yi génn nañ école yi fi nekk ñëpp génn nañ tey loolu rek lañ doon ñaan këri kaw génn ñu xam ne ñun ñoo war a defaraat suñu quartier muy premier acte nag boo xam ne ànd defaraat këri kaw bi mu ngi koy doog a teg te dañuy ñaan yàlla ñu bëgg def ay action sur action bu ñu paree ci yëpp ñu ngi xool am initiative bu pavé quartier bi defaraat ko ba nga xam ne quartier bi dina mel nu meloon démb te loolu yëpp dara ko may lu dul suñuy mag waaw ah, topp seen ginnaaw xam ne ñun ay ndaw lañu ñoom expérience bi ñu am xam-xam bi ñu am ñun amuñu ko donc dañ lañu collaborer ak ñoom ba ñu mën a delloo kàcce bi fi mu nekkoon démb ak bëkk démb di sant itam notre grand frère Marakan vraiment ci taxawaayam ñëw dooleel ay rakam ànd ak ñoom guddi ak bëccëg di bàyyi ay activité am guddi ay bëccëg réunion bu am mu déplacé wu ñëw gaare otoom ñëw toog loolu weesuwul bëgg sa quartier kon loolu mënul ñàkk ñu confirmer ko di sant ñi nga xam ne mooy Amsatou Sow Youssou Sow ñoom ñi nga xam ne tam booboog léegi weer ñu ngi ànd di dox ci lii ba li tey mën a mën a mel nii tey jigéen ñi tamit fàttewuñu leen. waaw moi je je m'appelle Pathé Ndiaye hein je suis euh, de ce quartier de Kirikao je suis né ici j'ai grandi ici voilà bon l'initiative là c'est une initiative collective vraiment de tout de tout le quartier des les, les, hommes, les femmes, les, les jeunes. Hein, nous avons décidé, après des hivernages euh, pluvieux, hein, avec des inondations qui ont vraiment euh, qui détruisent l'image de, de, notre quartier, Kéricou. Ici, quand c'est l'hivernage, quand l'hivernage arrive avec les inondations, nous sommes inondés. les rues sont pleines de boue, hein, pendant, pendant de longs mois. Alors, c'est une situation qui est, qui est due au fait que les, les travaux, les chantiers du canal de l'Est et du boulevard hein, sont, ne, ne, sont jamais terminés. Depuis 2010, euh, le, le, chantier du canal de l'Est est là. Euh, et, euh, il n'est pas terminé, ce qui fait que les eaux qui viennent du nord et de l'est se déversent sur notre quartier ici. pleine de boue. Ici, là où nous sommes, c'est un lac. Quand il pleut, c'est un lac. L'eau arrive jusque là, jusqu'au niveau du, du, du, mur là. On ne peut pas sortir de, de chez nous, on peut, personne ne peut entrer de chez nous. Alors, les, donc les, les, les habitants de ce quartier se sont mobilisés pour y mettre fin. D'abord, pour demander à l'État d'achever ces chantiers-là, hmm? de les achever le plus rapidement possible, en tout cas avant l'hivernage prochain, afin que nous puissions, après cette euh, grande opération de cette settle, nous puissions d'aller les rues qui doivent être dallées. et aménager aussi l'espace, l'environnement, hein? avec, des, avec des bacs à ordures et des bacs à fleurs afin que donc nous n'ayons plus. Euh, il faut que donc on ait euh, l'assurance que euh, le chantier là, le chantier du, euh, du, canal sera terminé afin que les eaux s'évacuent, euh, s'évacuent rapidement et normalement sans entrer dans le quartier et s'évacuent vers la mer. Donc nous lançons un appel surtout à l'État hein, pour finir ces chantiers. Ce n'est pas une menace, mais nous exigeons que ces chantiers soient terminés. On ne comprend pas que pourquoi, depuis 2010, ces chantiers-là ne sont pas terminés. Alors je voudrais enfin vraiment féliciter tous les habitants de Kerikaou. Vous avez vu, tout le monde est dehors. La jeunesse, les jeunes filles, les jeunes garçons, les adultes, ils sont tous là. Hein? Nous, euh, on peut dire même que nous manquons de matériel. Tout le monde veut mettre la main à la pâte, mais nous manquons de matériel pour pouvoir balayer, euh, désherber et tout. Bon, mais nous avons quand même eu le soutien de, de, de Sonaget. Hein? Nous avons eu le soutien également de la ville, de la ville de Rufis, qui nous ont amené du personnel et du matériel. Nous avons également acheté de nous-mêmes un certain nombre de matériels, des balais, les habitants de Kirikaou, hein, pour cette mobilisation générale qui nous fait honneur. voilà merci merci. voilà mbokki internet tour yëpp plus voilà defe naa ki ma taxawal kenn dootu ko présenté fi nga xamante ne mooy këri kaw ak lu ko wër mooy di doomu këri kaw di président këri kaw di def loo xamante ne lu am solo nee naa ne du ñu amoon ku mel ni kii deux wala trois incha allah këri kaw macha allah da mooy dàq Paris président nuyu nañ la. Euh, maa ngi fay waa plus di aussi di rafetlu baax seen taxawaay mais aussi seen. collaboration bi ñu am ni en tant ACP2 ak ak Rio Plus waaw. tey ñu ñëw fekk ngeen ñu def lu am solo ànd defaraat Kër Kaw mu doon initiative bu am solo paa yi génn nañ xale yi génne nañ euh, ndaw yi génn nañ ñëpp génn nañ daal nan ngeen def ba réussir léegi. waaw donc loolu pour ñu commencé rek dañuy d' abord remercier suñu doyen tonton Pata Ndiaye xamante ni moom mooy président bi mooy initié lii aussi aussi jëwrin muy Pape moo xam ne waaye lépp lu xew kër koo rek loxo mu si taxaw fi taxaw si bu baax a baax ak tamit ñoom grand yu yu saw ñoom ah, am sadu ak tamit tout waa ASC B2 ñëw jàpp si liggéey bi xam ne aussi kër kër ko suñu kàcce la donc ñu ñu fi dëkk ñoo ñoo ko war defar waruñu xaar kenn ku jóge si àll bi di ko defar si boobu donc aussi ñi ngi saluer ba initiative bi ñaan yàlla aussi mu nekk action pérenne chaque fois ñu ko mun def di temps en temps que boo xoolee yeneen kàcce yëpp ñu ngi def genre initiative yu mel nii Perco dafa nekk kàcce bu xaw a particulier bu xaw a spécial donc comme ni nag dañu si gën a sawar kontaan aussi ba nit ñëpp booluwaat fete fete fete xale yi nga xam ne suñ ko kenn war ko defal suñ suñ bopp waaw. est-ce que ce que yéen si set setal bi rek ngeen yem wala daa am yeneen yoo xamante ne di ngeen ko def si këri kaw. waaw donc set setal bi mooy première étape bi donc am na yeneen pro il y a plan d'action qu'on a en place. pour kër kaw donc dans un premier temps foog ñu nettoyer quartier bi ba mu leer koñ yëpp ñu am suuf ñu am mbalit woo ñëpp jeunes yi xale yi waa ASC bi tey jii ba la xoolee gis ngeen maire yi ñu ngi fi paa yi ñu fi xale yi ñu fi waa ASC bi kenn manqué wul donc lii day wane ne kër kër kaw quartier boo xam ne teel am amul problème ñu koy ànd ma nga ndaw xale ndaw donc on a un plan d'action wax na ñu koy mettre en place mais il faut que ñu defar premier d'abord Cricco set mu leer gis na ni monsieur le maire monsieur defar na lampe yi mi ngi leer rigole yi rue Adama aussi mi ngi koy defar donc loolu tamit de def ñuy gën a yombal liggéey bi ñaañaan aussi canal bu ne bi nga taxaw ni bu gën ko fermewaat ba mu baax ba mu praticable incha allah waaw sa këri kaw pare na pour mel ne comme bu njëkk ba këri kaw bu njëkk ba ne ah. léegi doy xool canalisation yi fi amul yëpp euh, dafa fermé wu ah. këri kaw daal doy xool même duñ tawee tamit day fees del ba si dugg si kër est ce que loolu yéen pare ngeen pour xoolaat loolu waaw boo xoolee tur association bi mu tudd rek mooy ànd defaraat kër kaw donc ça veut baax defare woon na donc bu ñu nee ne ay ànd defaraat kër kaw mooy dañu bëgg kër kaw mel bu tawee ndoxi dem euh, rigol yi mal di fi am dara dafa dafa kii koy bu mu sare xam ne kàcc bi suñ suñu kàcc la comme yeneen kàcc yi ni ko defee si biir Tëngéej aussi ñun tamit on a dañu di defar suñu kàcc bu set weccee te loolu aussi si la dox si tamit aussi di gërëm aussi waa ASC bi BD tey jii boo leen xooloon tey ñu waaye suñu final ASC ji ngeen xale jigéen yëpp génn nañ sol may ASC bi wane ne kër ko ñu ñoo ñoo ñoo moom Maguette Ndo on est ensemble sëñ Tubta aussi tamit dafa defar kàcce ba mu set dàkk yi décoré wax la benn mot boo xam te ne il faut que wax la ko euh, équipe bi ak waa koñ bi ñëpp ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay sant nee nañ ma yeggale loolu macha allah amuñu safay. amuñu safay macha allah ñoom ñëpp kontaan nañ si ñun tamit équipe Rio Plus di barki démb rek dégg nga gars yi lañ wax. ñu ne ñun dañoo favoriser waa BD favoriser wuñ kenn. ñun amuñu sax ASC ñun ñëpp suñu ASC nag mais xam nga rek mooy loolu. waaw en fait waa Cricor dañu baaxee di ma gërëm mais woo ñu ma sax gërëm parce que aussi man nekkoon naa jour si ASC bi di football suñu mag grand ñoo def li ñuy def donc tey bu ñëwee def suñu xaalis suñu xaalis lépp si équipe bi mooy que dañuy fay bor dem tamit ñeneen ñu continuer donc loolu suñu temps ñun bi ñu naan ay grand fi nekkoon ñu defar équipe bi bu donc ñun tamit buñ toll aussi dañoo jël la relève benn moment après ba baax ñi ñëw donc loolu amul gërëm amul dal soo ko devoir fi liñ juddoo fi liñ jàngee école donc lépp ñu am fii donc c'est la moindre chose lépp lu ñu am rek daa koy ak kàcce bi yéen tamit maman remercier bu baax gis nañ taxawaay bi accompagnement bi ñañaar aussi mu continuer déwén at yu bëri bëri pour collaboration ak waa Rio Plus ni aussi sama jigéen maman Guèye sama partenaire officiel bi <laughs> waaw mais yéen voilà mbokki internet tour plus comme ni ma koy defee rek saa ne tey nag ñu ngi fi nga xamante ne mooy këri kaw ñu war fas yéene ànd defaraat këri kaw ma taxaw ak seen chef de rek ma daal di koy bàyyi mu daal di présenté wu rek balaa ñuy tàmbalee waxtaan chef ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen gërëm si seen teewaay ndax lépp loo nit di def te amul communication rek day des kon nag leen di sant di leen gërëm man maa ngi tudd Ababacar Cissé. nekk yàlla def ma nekk délégué quartier fii di ci sant bu baax di sant waa quartier bi ci confiance bi ñu ma jox waaw. te tey ñu ñëw fii këri Kaw ñu def initiative bu rafet ànd defaraat li xamante ne mooy këri Kaw lan moo waral initiative bi. initiative bi d' abord dama ciy sant d' abord ndax lu ñu def ci quartier bi ci lu baax man lañ ko defal ndax bu ñu jëlee quartier teg ko sa loxo bu amee ndam yaa am ndam bu dee amee safaan bi tamit ci yow lay jëkk dal. donc bu ma bu ñu amee initiative taxaw def lu mel nii dañuy sant man damay sant yàlla bu baax di wax ne xale yi seen vision mu ngi ñëw ndax këri kaw dafa nekk quartier boo xam ne quartier pilote la nekk au centre ville tey jii bu ñu doon wax dañ naan mooy capitalu Tëngéej yàlla def na administration générale yëpp fii la nekk école yëpp fii la nekk lépp fi la nekk donc ñun ñu fi dëkk ñoo ko war a jëkk a defar balaa ñeneen di ñëw di ñu fekk moo in moo tax ñu dajaloo nekk benn ànd ak coordinateur bu ñuy wax Pathé Ndiaye du sunu mag ànd ak président conseil de quartier bi ànd ak président ASC bi ànd ak suñuy jigéen ñi nga xam ne ay responsabilité lañu yore non seulement ci quartier bi mais ci dëkk bi maam Farma ngi fi njéemee ngi fi ak keneen ak keneen ñoom musli taxaw fii ñooy équipe bi taxaw lii nag li environnement moo jiitu ci lépp ndax environnement préven prévention la ndax boo deful sa environnement feebar bu ñëwee mën na la gàllankoor te feebar bu la daa daanelee nag bu la abaatare nag jeex na nit balaa ngaa def dara il faut nga mu wér moo tax waa quartier bi dajaloo nekk benn euh, góor jigéen mag ak ndaw préparé nañ ko presque un mois moo tax tey jii ñu commencé ko quartier buntu kër boo dem maire yi génne nañu mag ñi génne nañ toog jël bu ñu liggéeyul sax jël seen chaise teg seen buntu kër loolu pour encourager xale yi fi nekk ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan ci yàlla yàlla ñu yàlla gën a dooleel gën ñu boole génn seetaani suñu diggante ba ñu mën a ànd ñun ñëpp initiative bi mu doon boo xam ne du toon tey rek mais loo xam ne chaque deux mois wala trois mois man koy def. est-ce tey si initiative bi set setal bii rek nga ñu lancé wala am na yeneen projet yoo xamante ne di ngeen si dugg. Euh, waaw projet yi bari na mais loo gis rek tàmbali la ndax maak président conseil de quartier bi ak ñi fi nekk ñëpp. dem nañ ci forum des entreprises bi ñuy bu commune de Est doon organisé mais dañ leen xamal na leen quartier bu nekk war na am plan de développement plan de développement nag mooy defar quartier boo ko defaree sa quartier ba pare ut ñu la jàppale nag mais loolu il faut nga am plan de développement moo tax plan de développement bi ci lañ nekk dañ ne nañ commencé si set setal bi yeneen yi bari na yeneen projet yaa ngi ñëw canalisation mu ngi fi ndax ñun suñu problème majeur canalisation la surtout côté bii loolu moom buñ ko amee projet yi day gën a day gën a baax rek. Mhm. waaw ñu gis na kër yi kaw saay su tawee day metti pour nga am foo jaar kër yi dañuy fees école yi dañuy fees est-ce que loolu yéen pare ngeen pour saafara lool. ñun nag xam naa ñun pour population bi saafara ko dina jafe ndax problème la boo xam ne problème ville de Rufisque la. problème état la d'abord ndax état bi canal boo gisee kanaal euh, de l'est mooy fii pont bi nekk léegi problème mu këri yëpp boobu kanaal moo koy indi canal bi dañ ko waroon a prolonger ba mu dem géej moo am centre d'épuration comme centre d'épuration Bodin bi mais boobu projet am na presque dix ans jusqu'à présent parewul moo tax a chaque fois boo amee inondation canal boobu mooy jël di déverser ci këri ne këri kaw suñuy jamono ñun amul woon problème yi mais problème yëpp kanaal booboo ko indi donc daal ñu ngi lancé appel à l' état abord ndax du problème commune problème état la état bi moo yore travaux yooyu bu yeggee ba pare commune bi accompagner ñu loolu daal mooy sunu problème fi mu nekk. waaw bàyyi la sànni benn kaddu rek sama dernier mot. sama dernier mot la rek di am mbégte lool gis nga tey ñii ma yeewoo nii xiifuma maruma xam nga lu tax mbégte mbégte bi lu ko indi mooy këri kaw a dajoo tey bu président conseil de quartier taxawee délégué quartier toog taxaw président ASC bi taxaw nu notable yeeg jigéen ñee góor ñi taxaw ne tey suñu objectif lii la dama ci man maa ci war a jëkk am mbégte ndax man la dénk quartier bi donc maa ngeen di gërëm di leen sant. maa ngi leen di sant bu baax si déplacement bi ngeen def pour war a mën a wane li ñuy liggéey euh, El Hadj Ousmane Sow président conseil de des ci Këri Kaw. tey lan moo waral initiative bi. waa li ko waral lenn kese la mooy gox kenn lu la ko defaral yaa koy defaral sa bopp ku nekk fi nga dëkk yaa koy defaral sa bopp dëkk kenn ko développé si langu jàmbur si culture jàmbur ak xam-xamu jàmbur. ak jeune su jàmbur ña fa dëkk ñoo koy defar. mel ni tey da ngeen ñuy wax ànd defaraat li nga xamante ne mooy këri kaw kon këri kaw meloon na loo xamante ne macha allah rafetoon na. këri kaw mu nekkoon exemple Tëngéej maanaam Tëngéej bu doon Sénégal këri kaw mooy capitale bi loolu yàlla dogal euh, maire yi nekk yi nekk si Tëngéej euh, erreur bi ñuy def mooy li tax mënaguñ defar Tëngéej mooy këri kaw lañ defaragul këri kaw mooy Tëngéej. gis bu ñu defaree kër yi kaw bu réussir rek mooy Tëngéej dafay rafet parce que mooy boulevard bi li ngay dégg yëpp assainissement bi dëgg la côté bi amu ko ak problème bi ñuy am si canalisation bu est bi benn problème mooy est bi est bi bu duñ ko dégagé mooy ndox dootul am Tëngéej waxuma la kër yi kaw de parce que Tëngéej dafa descente la dafa wàcc ba fii te loolu yëpp lu ñu ko indil mooy terre bi parce que ñun kër yi kaw mosuñu am ndoxu taw ndax am na añ pompe d'évacuation yu bëri fi am mais bi ñu installation terre bi bi mu amee ba pare ndox mi daan jógee Arafat di ñëw mooy wàcc si pont Marina bu tawee ba pare si la ndox mi di jógee Marina wàcc biir kër yi kaw mais kër yi kaw mosul am ndox waaw bi muy dem si quartier ñu bëri ñu bëri léegi jeunesse bi ñoom ñooy basé wu sans ñu basé si état nii de maire mais pourquoi loolu. waaw parce que xam nga lu waral loolu parce que dañu dem ba yeewu xam ni maire bi wala état bi dalay tegal ay conditions yow mën a liggéey mais yow yaa koy liggéey maanaam loolu dem nañ ba xam loolu te ñu ci gënee yeewu rek mooy waxuma la Tëngéej waxuma la Kirikaw mooy Sénégal dina développé parce nag. li ma la wax sànq rek ñun ñoo mën a développer dëkk bi ñun waruñu toog di xaar lu mel nii nag dañ koy encourager lu mel nii parce que euh, comme ni la ko délégué waxee responsable yëpp jóg nañu kii sama ma sœur Mami Fatma responsable la si këri kaw Sanu mooy président ASC bi nekk adjoint maire délégué de quartier wax na ba pare Papis Gueye mu nekk jàmbaar lool ci côté bii côté assainissement mu liggéey ci liggéey bu am solo kii moo yor cadre de vie ak environnement muy Déthié Diouf muslim ñoom ñëpp a ngi si quartier bi ak ñi ñu tulul monsieur ku mel ni monsieur Pathé Ndiaye ñoom euh, euh, ku bàyyi ku ku lim rek mën nga bàyyi Pape ñoom am satu ñoom Youssou Sow maanaam depuis bi ñu ko taxawalee ba léegi guddeeg bëccëg ñu ngi sensibiliser di waxtaan pour ni ñi génn lépp kon ma xam ne kon ñii am nañu yéen a defar kon peut-être leen rek moo des mooy ñu gën a am volonté maanaam gën a nekk benn nag parce que bu ñu taxawee ay structures yu mel ni conseil de quartier euh, du lu ndaw parce que conseil de quartier mooy mooy représentant wu autorité bi ak quartier bi ñun ñooy interlocuteur bi ñun ñooy jël jàmbatu population bi nekk ci këri kaw yóbbul que eh, maire bi walla préfet ndax semaine passée rek ñu ngi woon maire yi comme ni ma la waxee ñoom benn forum euh, des entreprises de Rufisque mu nekk forum boo xamante ni buñ ci jógee bëgg nañ entreprise yi nekk Tëngéej particulièrement yi nekk Est maanaam waa population bu gën si gis seen bopp kon nag nañu gën a dooleel mooy entité yi nekk biir këri kaw gis bu ñu leen dooleelee rek nekk benn yàlla dinañu dimbali. parce que njiit nag euh, maanaam lu ne organisation bu ne dina am ku jiitu mais du question ko moo jiite mais lenn rek moom am si am mooy li si ginnaaw buñ ko bootee rek maanaam may ko doole rek incha allah fuñ ñu a jëm yaa ngi fi ba pare ñuy def lépp luñ ci mën def rek comme ni rek depuis le début lépp luñ mën def rek ñu def ko te yàlla tax. gis nit lépp loo def te yàlla tax rek yàlla def la si ndam waa nañu def rek te yàlla tax gis bu ñu yëkkatee te yàlla tax yàlla dinañu dimbale si lu bëri encore une fois kontaan nañ si seen déplacement kontaan nañ si ñëpp waa këri kaw génn nañ di leen sensibiliser parce que boo gisee lii ni mel nii mëri na defuñu ko de këri suuf defuñu ko salte bi nga gis ni waa këri kaw ñoo fi def kon waa këri kaw nañ xoolaat bu baax amuñu assainissement mais bu ñuy tuurati suñuy ndox comme ñi dëkk zone bi Kolikaw gaar bu ñuy këppati ndox mais nañu segg ndox mi dindi mbalit bi boo sottee ndox ndox mi mën a dem mais boo jëlee mbalit bi nettoyé nga sa kër nga salteel mbedd mi mbedd mi après bi day dugaat si kër gi sa doom mooy foo dem feebar dugalaat ki ci kër gi il faut ñu xam ne ñun defaroo bul defar sa bunt rek mais bul lor ndax yàlla buggul kuy lor ndax nee na bu lor sax sa bopp kon kon kon buggul kuy loraate li ma wax nañ ko tegaat si yoon organiser waat lu mel nii nag ñu bañ koy soril di ko def chaque 15 jours ñu génn chaque 6 mois ñu def opération mag oo waa UCG waa DST ñu ñëw jàppale ñu këri kaw ca kaw sa kanam nekk comme bu njëkk quartier exemple ñëpp mën a ñëw di roy si ñun ndax loolu la yàlla dogaloon te yàlla na ko yàlla dogalaat. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa këri kaw yëpp ñi ma fi fekk sama kilifa yi commencé ko si chef de quartier bu ci suuf man nag maa ngi tudd Mamy Farma euh, conseillère municipale Rufisque Est donc dëkk en plus si koñ bii nii tey ñuy ñuy defee set setal bi di ko rafetlu lool c'est une bon bonne idée euh, ma fekk sama ay frère sama ay sœur sos ko ba pare donc ñun dañ ñëw rek pour appuyer si parce que fii leen dëkk. Mm-hmm. tey ñu gis li nga xamante ne ICG ànd nañ si. Mm-hmm. CDE ànd nañ si mu doon lu rafet. Mm-hmm. te ñoom mënoon nañoo croiser seen bras defuñu loolu. lan waaw mais parce que comme ni ko chef de ca waxee rek mag ñi fi nekk euh, coordinateur bi ñoom ñoo ñoom ñoo organiser wu de telle sorte que du waa koñ bi kese mooy génn dinañ am ñeneen ñu leen mën a donné pour ñu pour ñu mën a liggéey liggéey bi xam nga waa UCG ñoom nettoyage la ñuy def ak désencombrement dindi salte donc bu ñu defee lool noonu bu boole ci waa koñ bi rek pour am résultat boo xam te ne bu gën a satisfaisant la rek. waral loolu si ñëpp génn nañ tey xale yi ndaw yi paa yi maire yëpp génn nañ. Mhm. defe naa communication bi daa dox. waa entente bi moo indi loolu man nag entente bi moo indi loolu que ne këri kaw bee ak bi yëpp c'est la même chose bu bii xewlee bee day ñëw bu bee xewlee bii day ñëw. donc je crois que ne ñaari këri kaw yi amul amuñu problème boobu noonu pour kii dem fii kii ñëw fële parce que national bi rek moo leen séparé donc y' pas une grande différence te ñun ñi fi dëkk ak ñi dëkk fële ñëpp ñun ñëpp jàmm lañ seex donc mooy entente bi toujours waaw. yéen projet yi ñu lancé waat à part set setal waaw yi bëri na comme ni ko chef de quartier bi waxee ñoom ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey après lii comme li ñu wax assainissement li ñu mooy mooy sunu priorité nag assainissement ñun këri kaw parce que amuñu chance boobu noonu. mooy comme forum bi ñu waxoon bi ñuy bi euh, délégué de quartier bi wax léegi nii man fa laa nekkoon démb ba tey ci lool loolu dinañu gën a permettre li ñu bëgg pour Kër Kaw mu gën a yomb da koy gën a yombal assainissement bi nag ku ñu ci dimbali dañuy jël parce que état moo ko mën a assainir du ñun commune yi ñun ñoo ko mën a def loolu liggéeyu état la te pour état mën a mën a wàcc si fii nii il faut ñu dégg ñu je crois que ne ñoom ñu ngi sur sur la bonne voie donc pour pour pour état dégg ñëw dimbali waa Kër Kaw parce que Kër Kaw mooy vitrine Rufisque ku fiy dugg munoo bañ a jaar ci national bi te national baa ngi ni ça fait plus d'un an wa ngi liggéey mënu fexe ba pare pour mairie ville def fi ay ay lampe éclair euh, éclairage beeg yooyu yëpp mënul possible parce que ñoom li ñuy li ñu commencé mënuñu fexe ba yeggali ko te loolu waa Promoville la te Promoville état la donc des fois ñun dañu ñu si interpellé di ñu wax national bi liggéeyoo leen ko non national bi du du du ñun du commune bi du commune bi état bi la. donc état bu avancé le liggéey bi rek commune bi li mu war a def yëpp dina ko def te commune bi moo war a assainir moo war a def moo war a def lampe moo war a def ay ay garab loolu yëpp commune bi moo ko war a def mais day fekk état bi pare. est-ce que jéego yooyu ngeen di def est-ce que ngeen def jéego ba état bi dégg ne carrément loolu moo waaw état bi fi ñu war a waxee yow waxee nañ fa je crois que ne ñëpp gis nañ déclaration docteur Omar Cissé à l'Assemblée donc jàllale na ko bu baax a baax ñun ñi nekk tam ci communes yi fu ñu mënti dem di représenter Kër Kaw assainissement rek la ñuy wax ak pavage parce que lool mooy su suñu priorité problème mu ndox comme ni ko kii waxee Sow waxee terre bi moo ñu gën a indil problème u ndox këri kaw ndox bi daa fi stagné mais léegi daf fi wàcc parce que amu fu mu jaar te pour loolu réussir il faut ñu am assenissement bu baax je crois que ne plaidoirie boobu noonu docteur Omar Seye jàllale na ko wax na ko fi mu ko war a waxee ñun ñii ci nekk nekk ci ginnaawam fi ñu ko war a waxee yëpp ñu ngi ko fay waxee pour jaalale ko pour pour pour këri kaw. am na sama baale sa dernier mot. waaw ok di remercier ñëpp rek sama frère yi ma fi fekk sama sœur yi liggéey bi rafet na nañ ko continuer te mu bañ a yem si benn bii rek quoi liggéey c'est pas que at bi benn yoon rek nga ciy nettoyer war nañ ko mën a def chaque 3 mois wala chaque 6 mois ñu def nettoyage général nettoyer koñ bi day gën a raffermir lien yi parce que nit ñi bu ñuy génn chaque fois di gisante day indi collaboration day jàmm. te këri kaw entente lañ fi mës a woote du te loolu noonu warul dañ warul dañ waaw. merci beaucoup. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa këri ñëpp di nuyu la délégué de quartier man la Pape Déthié Diouf yor commission environnement bu conseil de quartier bi. ok jërëjëf lan ngeen ñi tey jii seen jéego si wàllu set setal bi. ah set setal bi moom eh, tey moom dañ ko rafetlu ndax këri kaw dafa daan dafa doon jooy lii set setal ndax set setal boo xoolee gëj na fee am set setal général bii nga xamante ne ànd defaraat këri kaw ak conseil de quartier bi ñoo ko piloté pour le bien-être te kii nit ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ci quartier bi ndax boo xoolee tey ni événement bi déroulé mooy que ne këri kaw ñëpp a génne këri kaw gaar këri kaw ñoom ñëpp a génne comme dañuy rafetlu rek initiative bi di ñaan yàlla mu bañ fi ñem mu bañ fi yem surtout moo am suivi quoi. en tant que environnement est am na yeneen yoo xalaat à part lii. waaw am na ay yeneen projet yoo xamante ne mu ngi suñu kanam comme euh, dañuy am na yenn journée boo xam ne journée de reboisement la ñuy def wax euh, journée boo xam ne tamit aussi journée de pavage la ñuy def na pavage tamit dafa bokk ci environnement. na boo xoolee lan moo tax ñax yi ñax yi di sax mooy fa sax kenn pavé ko léegi yooyu yëpp nag mu ngi suñu kanam ñoo xam ne dañ si war a liggéey. fu mu nekk nii nag projet yooyu moo nekk gum suñu kanam mais moom journée de reboisement la ñuy def ba pare waaw kon allah waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu la délégué de quartier le président Ousmane Sow ak notre coordonnateur monsieur Pathé Ndiaye di nuyu monsieur le maire Sanou Mar conseiller di nuyu ñëpp incha allah di nuyu waa Kër Kaw ñëpp di wax ne le meilleur reste à venir quoi je vous remercie merci. Ah, mi ngi noonu comme ni ñu koy waxee rek ñu ngi fi nga xamante ne mooy Kër Kaw ànd defaraat Kër Kaw ma jigéenu Kër Kaw yaa ngi nii supporters yi macha allah li ñu def ni rafet na li ñu sol ni rafet na di jaay ay mooy dama bëgg ñëpp nañ si jàpp après dinañ si wax si nuyu nañ waaw fay bu baax a baax. maa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax. lan moo waral initiative bi. waaw instant bi moom dañoo jug pour ànd dafa Kër Kaw jug tamit pour jeunes yi pour jàppale suñu papa yi suñu tonsi nekk fii parce que amuñu leen lu dul suñu quartier te jamono ji waruñoo xaar benn maire parce que bu setee ñun la bu saltee ñun la kon ñun jeunes dañoo jug tey pour ànd ak suñu papa pour defar Kër Kaaw mu set. léegi gis naan ngeen ngeen génne en masse xale yi génne nañ mag ñi génne nañ jigéen ñi génne nañ maire yi génne nañ lan ngeen def ba réussir loolu. waa lépp loo gis rek waxtaan la parce que lii defe naa ne même bu amee ah man fekkee ma ko ren daal laa gis lii parce que suñu papa tonto paate dafa jug pour jàpp lañu ñu benn yoon parce que tey lépp loo gis rek bu amee mag day dem parce que mag ñi tey dañoo jug pour ñun ñu topp si ginnaaw pour defar quartier bi parce que tey lii nii sag la su ñun vraiment sag la su ñun. ñu gis nañ ngeen yore ay moyens mooy pour la la. waaw moyen bi pour finaan la B2 instant bi dañoo jug pour jàppale suñu équipe bi pour jël coupe bi incha allah te incha allah si kàttanu yàlla dañuy jël coupe bi léegi dañoo profité si euh, sesatal bi. pour jaayaale maillot yi pour B2. yi seerul. non maillot yi seerul moom franchement parce que quartier boo dem day cher mais ñun bi ñoo ngi koy jaayee 5000 pour jàppale équipe bi. mu ngi noonu kon gars yi yéen ñëpp jàppaleñ si ndax dooleel sa équipe macha allah équipe bi dem na final kon gars yi jàppaleñ si ngeen jënd maillot yi dem sol dem supporter seen i Lions du ñu gagné ngeen indi ko fii féete ko mi ngi ni prix abordable na mooy neex na si tàngaay bi da ngay supporter aisément kon boog gars yi dañ leen di woo solennellement ngeen ñëw jàpp si mooy génn si mooy aussi jàppale ASC bi dooleel ASC bi dernier mot bi waaw dernier mot moom mag ñi rek laay remercier tonton Paale mi tonton Paate ak ñeneen ñi nga xam ne fàtte naa seen tur mooy ñi taxaw suñu ginnaaw parce que suñuy papa lañ bul dara dul dara ñoom ñoom moom këri kaw te tonton Paate moom vraiment ñoo ngi koy remercier bu baax ndax amaana mun na ne carrément ah baay ma bàyyi jeune ñu dem mais lépp loo gis rek il faut mag jiitu il faut mag jiitu te ñun dañoo bëgg dañoo sonn parce que nawet gi dañuy sonn vraiment da ngay xool ne maire bu ñëw xam nga rek affaire politique la dañuy ñëw jàppale ànd ak yow mais après boo toogee mooy loolu te quartier yëpp dem nañ da xool jokkul jeunes yi ñoo ko defar kon ñun pourquoi ñun jeunes yi mënuñoo génn wane suñu bopp defar suñu quartier parce que bu saltee ñun la bu tilimee ñun la te vraiment këri kaw moom dari quartier boo xam ne macha allah waaw ku taxaw rek day dem. acca acca mi ngi nii mooy nii xaaral leen mooy xaaral leen mooy